dal leen ak jàmm ci info 221 seen bi leen di jox xibaar yu wér abu wóor leen ngir dara bañ leen raw. jërë ngeen jëf mbokku internet info 221 ñu wéy ak yéen ci xibaar yi rek fas yéene àddu ca la nga xamante ni jamono ji mbirum ki nga xam ne rek uh, moo di Barthélémy Dias nag boo mooy dina ñàkk nag lu jëm ci député ak lu mel kii di Guy Marius Sagna nag taxaw na temm ngir fas yéene jàppale ki nga xamante ne rek uh, moo di. Euh, Barthélemy Diaz leader bu France euh, du FRAPP euh, France dégage mu ngi invité nag démocrate yëpp ñu booloo doon benn ngir rek dindi fii injustice bi nga xamante ni mu ngi fii ci réew mi ci benn déclaration bu takku la gi Mari Sagna doon exprimer nag njàppandalam ndimbalam ak kii di Barthélemy Diaz ginnaaw rejet pourvoi de cassation bi nga xamante ni jotoon na ko déposé ca Cour suprême te ñu dàkkal ko ni ki démb ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru décembre mbir boobee sax dem rek ci mbiru Ndiaga Diouf bi ko wutaleeg moom amoon catum atum 2011 ginnaaw ba ñu fàttee Ndiaga ju ci fitna yi amoon diggante ña féete ca mairie ba ci atum 2011 moom leader bu France Dégage nag moom nee na pare na temm jël na décision bi nga xamante ne Cour suprême jël nañ ko loolee rek lu jëm ci wàllum injustice flagrante la ba tax nag mi ngi sàkku rek nekk réewum Sénégal jamono ji destinataire yi ak menace bi nga xamante ne nemmeeku nañ ko ci réew mi jéggi na dayoo nag képp koo xamante ne bureaucrate la nga wala nga fiite ci Macky Sall daal lépp yow yaa ko yeyoo bu fekkee nag ci guddi gi nga nekk yow boo moytuwul nag ci kaso bi ngay dee Guy Marius Sagna nag nee na ci caractère loolee kenn mënu ko accepter pratique yi nga xamante ne ñu ngi koy def rawatina ay nervi di attaqué ay opposant di leen fitnal di leen méttital loolee nag nekk histoire goo xamante ne dañ ko tegee ne waaye lu doy waar la nee na nag en tant que ancien coordonnateur bu mouvement f nga moom nag ci région bu Tamba jot na affirmer nag moom ndimbalam jàppandalam ci Barthélémy Dias ci injustice bi nga xamante ne jot nañ ko teg ci bopp boppam moom leader bu FRAPP France dégage nag mi ngi woo démocrate yëpp ñu booloo doon benn ngir ñu jëlee fii injustice bi nga xamante ni Macky ak ñu ñem ñoo ko fi indi ba tey nag ci wàllum xibaar Thierno Alassane Sall moom nag jot na déposé ni ki tey nag ca conseil constitutionnel noone la amee président nag bu république des valeur di Thierno euh, Thierno Alassane Sall déposé na candidature am ca conseil constitutionnel ngir rek élection 2024 yile ginnaaw ba nga xamante ne jóge na ci nguur gi moom Alassane Sall ci atum 2018 Thierno Alassane Sall nag jot na restaurer valeur dem rek ca te proclamé ko sax te 2000 ginnaaw bañ ko jëlee ca bu mu jógee nag ci nguuru Macky Sall ca 2019 la samp ci conseil constitutionnel ci contrôle le parrainage actuellement nag moom coalition bi jàpp nañu daan ñu ngi amal liggéey bu baax fii ci réew mi jamono jooju tamit Karim Wade moom dina déposé nag moom it ay dossier am ca conseil constitutionnel parti démocratique sénégalais jaarale ko ci seen mandataire bi lii di si màggete si moom nag jot nañu déposé conseil constitutionnel dossier candidature Karim Wade jaatum 2024 nit ki ajuma ji démb la woon nag jotoon nañ nag am récépissé ak convocation ci tirage contre parrainage buñ sukkandiku ah, ci note bi nga xam ne secrétaire bu yor wàllum communication PDS jot na ko fësal